yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. asalaamaaleykum wa rahmatullah ngi ziyaare waa barab bii ñu ñëw tey doon barab bu sell nekk jumaay Tuuba ñu ngi tàmbalee nuyoo bi suñu kilifa. sëñ Afia Bousso du ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér du nuyu waa daayira Muxaddamatul Xidma yëpp sëñ di ziar bu baax nuyu it njabooti Cheikh Babacar Guèye tàmbalee nuyoo bu ci suñu xalif suñu baay Fallou Guèye du ko ñaan suñu borom yàggal ko fi lool waaw ñu du ko ñaan suñu borom ko tam ànd di ñaanal njaboot gi yëpp. waaw di yëkkati kàddu rek si njabootu Cheikh Babacar Gueye yépp ci liggéey bii nga xam ne ah woon nañ ko dugal ko ci ëtti Cheikh Babacar Gueye Cheikh Babacar Gueye moo mooy bi nga xam ne moo àndoon ak Serigne Touba jeewal moo ko yenn loon gaal gi moom ak Cheikh Mamour Fall Serigne Touba nag dénkoon ko sëñ Mamour Diarra ah njabootam nag ñoo ñëw tey ne dañoo bëgg sumeeku ànd ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ci liggéey bii nga xam ne ah, liggéey boo xam ne képp ko ci yàlla boole sant rek moo la war. yàlla dogal nag ah ñu woo ci ñu góorgóorlu nag boo indi ci tey suñ ñaq kàddu yi nag kon kàddu soññe rek lay doon ndax am murit moom dañ ne loo def bu ko xeeb te bu ko yem kon kàddu yi kàddu soññe lay doon ci njabooti Babacar Gueye Sanu Gueye ak Saasu Gueye Saasi Gueye ak mbayeen ak fayeen yëpp ak képp koo xamante nii Cheikh Babacar Gueye ah yóbbu woon na sa maam ci Serigne tubaa ñu ngi leen ci woo ci liggéey bi nga xamante nii mooy liggéey bi nga xam ne moo fi des ndax jumaa ji dafa bokk ci ndénkaane sëriñ Tuubaa yi kon nag lépp loo xam ne lu jógee ci taalibe jëm ci fii la da xam ne yaa ngi koy def barab bu wóor waaw boo xam ne ab denc la kon nag nañ ci gën a góor góoru rek di di ci woo ñëpp di ñaan yàlla suñu borom téyel ñu liggéey bii ba dara bañ koo yàq yàlla may ñu xiiwal yoo xamante ni saa su ne rek lépp lu ñu am mébét def ko fi dinañ ko fi mën a def incha allah. ñu ngi jégalu lu baax ci kàddu yi naa dañoo mën a wut wax waaye ñu jox sañ canoo rek lépp lu si manqué mu mottali ko incha allah yaa kay auzu billaahi mina sheytaani rajim bismillaahi rahmaani rahim mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ginnaaw sant yàlla julli si yonent bi sant xaadimal Mustafaa ñoo ngi ziar ñëpp di baalu àq ñëpp si weeru tedd yi di ñaan yàlla daje bi yàlla bu mu nekk suñu mujjanteelu daje te mboolem loo xam ne ñu ngi koy sàkku si yiw rek yàlla na si yàlla jox ba jox ñu si lu koy suñu jot di ziar bu baax di rafetlu tamit ah euh, jotaay bi ndax jotaayu diine la jotaayu tawféex la si ko lool nag ñuy sant bu baax ki nga xam ne mooy bunt ba tam jaar si moom muy sëñ Mahamadan Guèye mii doon wax léegi ndax daanaka moom moo jaxasoo ak njabootu sañ Omar Diop ba tax ah, mu gis liggéey boobu doon fa yëngu dem ba ci biir mu ne man de su ma sañoon. ah njaboot gi nga xam ne maa ngi ànd ak ñoom di njabootu laa di waa Kër Cheikh Babacar Guèye ñu boole leen si liggéey bi si noonu leen ko dafay jëw leen sampal ko selil mu fas yéene tamit ah yokk si li nga xam ne moo nekk liggéey bi loolu nag ñu ngi ko siy sant nag bu baax a baax a baax a baax di wax sama mbokk taalibe yi rek ne ah euh, addee ji nga xam ne mënoon noonu dajale lépp tey ji indi nañ ko ndax mboolem koo xam ne taalibee nga bokk ci nooru laa joxe nga sa àddiya wala am nga yéen joxe li nga xam moo nekk sa àddiya ñi nga xam ne tamit ñoo nekk suñu am di jàmm doon suñuy rakk suñuy jarbaat suñuy doomu ndey suñuy doomu baay ndax kat ku gis lu baax ku ne koo am ku baax ku nekk danga ko koy yéene moom moo tax ban xamee nekkat fii nii dugal fi sab dërëm ah, làqukaay la boo xam ne yàqkat yàggu fa moo tax ba nga xam ne mbooleem koo xam ne xam nañ ko bu doon nit ku baax rek tànn nañ la ci tànneef yi ne kat dugal foofu sa dërëm kon nag ñu ngi si sant yàlla bu baax a baax a baax fas yéene rek xanaa jotale ay kàddu soñña rek si jëmale ko si ñi nga xam ne ñoo nekk njabootu Cheikh Babacar kër ne leen liggéey ngi nii boo xam ne yokk si na si liggéey ba nga xam ne moom doon liggéey waaye liggéey la boo xam ne yaakaar ëpp ko liggéey la boo xam ne lu si waaye def ëllëg suñ la ko fayee rek nga rus kon nag ah, ñu ngi si woo mbooleem koo xam ne rek yaa ngi bokk si daayira Nuurulaax ne nañ siy tàbbal suñu ñax ndax li ab tàmbalee la te tàmbale bu nekk daanaka day bette moom moo tax ba nga xam ne li nga xam ne indi nañ ko ah daanaka si diir bu gàtt lañ ko dajale waaye incha allah suñ si jógee fi mu nii ren jii lañuy tàmbali di waajal li nga xam ne moo nekk weeru koor di déwén ñaan yàlla yàlla ñoom yàlla may kattan ak wër bu yéen ji nga xam ne am nañ ko yëpp ñu mottali ko ñuy jaar bu baax tamit suñu bunt si yoon bi muy ah, waa kër sëñ Mouhamadane Bousso te sëñ Abdou bu Bousso nekk ah, kilifa gi ñu ànd ki nga xam ne moo nekk rakam di sëñ Abdou Lahad Bousso ñoo ngi koy jox wàcc waayam bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla na may ñu kattan ak wër ba li nga xam ne yéene nañ ko liggéey ko si kër googu tamit yàlla may ñu kattan ak wër ba mun ko liggéey bu baax a baax a baax gërëm tamit soxna yi comme sànq noonu ko waxee rek ndax fu góor yàlla taxawee rek soxna su baax moom moo nekk si wetam te liggéey boo mënti gis fi mu nekk si jamono ji ñu toll daanaka soxna yi ñoo ëpp doole kon nag ñu ngeen di bu baax baax di leen ñaanal lu mën ren yàlla leen mën déwén lu ko ëpp si barke borom Tuubaa salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaare di leen ndokkeel bu baax ci weeru tedd bi ñu nekk ak ci barab bu tedd bi ñu nekk ci biir jumaay Tuubaa di leen nuyu yéen waa njabootu Serigne Babacar Guèye mi nga xam ne ci mag ñi àndoon Seexul Xadim la di nuyu njaboot gépp nuyoo googu nag dañ koy jaare ci tu xalifaam Serigne Fallou Guèye nga xam ne mooy xalifa sëñ kër Guèye waaye di ko teg ci loxo kii coordonné liggéey bi di sëriñ Mahmoudan Guèye ma eggale ko ci mbooleem njaboot gi góor ak jigéen mag ak ndaw mu ngi leen di jotale ay cant ak i ngërëm ak i nuyoo ak a siyaare di leen dalal ak jàmm ndax mel na nit bu fekkente ne dem nga ba yàgg nga gis cër boo xam ne sa maam moo ko amoon Sëriñ Tuubaa topp ci ginnaaw Serigne Touba di liggéey Serigne tubaa ba yàgg Serigne Touba jël la boole la koo xam ne kenn la ci moom di Mamor Jaara yàlla sa dogal xam na ne kon kooko sa sa maam jooju cër bu amoon Serigne Touba cër bu rëy la ba ba tax mu la liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Mamor Jaara kon nag cër bu mel noonu ku ko yàlla jox nga dox ba gis ne jumaay Serigne tubaa jii nga xam ne am na taxawaay yu ci am yoo xam ña koy taxawee mooy ñooñee àndoon ak sëriñ bi rek ngeen futti ko doon benn fas yéene li ñu fiy def ci koor gi ak màggalu Tuubaa ngeen di dajale seen addiya di ko fi indi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen a xamal ne mbir la moo xam ne xëy na day soog jot seen maam xëccal leen ko ngeen ngeen war ko ci liggéey waaye jëf la ju jëf ju rëy rëy jëf joo xam ne jëf ju mat a jëf la ndax nit bu doxee ba gis lu baax ndax ñii ngeen fi dajal tey di waa kër Mandiaye Fall Amine nga xam ne ñoom it seen waajur yi ak seen kilifa yëpp dañoo jeexoon ci jumaa ji ñoom ba ñëwee ñoom ni ñu futtiku jeex ci liggéey bi ba sët yi ñëwaat nii yéen ñooñu ngeen doon ànd ak ñoom ci ba yàgg ngeen gis ni lii lu ñu war a yaatal la ci seen njaboot googu ngeen dem def lu mel noonu loolu tamit cant yàlla war na ci ndax nit moom fu mu ba gis lu baax rek da ko war a roy kon nag jëf ji ngeen ji rëy da ngeen ci am jëf ju rëy waaye ñu koy jëf tamit ba tax ngeen roy leen ci danañ ci am jëf ju rëy loolu nag mooy koo xam ne la Sëriñ Tuubaa waxoon ne Eh, jëf ju baax fu mu baaxee àll jullit la bu ko jullit gisee nu ko jël jariñoo safaan ba nee na ab jullit da ko wër te xam ba di ko am kon nag yéen bu ngeen doxee ba gis lu baax lu ñu war a roy roy ngeen li ci waaye lu lépp dafa mel ni Sëriñ Tuubaa ci boppam moo doon koo xam ne ku bëgg a dimbali ku ne day fas yéene kala boole ca moom mm, moom matal la boppam ba indiwaat leen ci liggéey bi ndax ku samaam futti koon àndu Sëriñ Tuubaa surtout ca jeewal jaak fu nekk boo demee ci baydu da ko sëñ Musaa di waxee nga xam ne xam na ci ni ñoom sëñ Babacar gi bokkoon na ci ñaan ak moom yan woon gaal ya kon nag loolee nag bu yàlla dogalee nu ngeen dim dikkaat liggéey Sëriñ Tuubaa bii nga xam liggéey bu rëy rëy boo xam ne ku ne ngeen xam ne que liggéey la bu rëy rëy boo xam ne seen maam moo leen ko dencaloon ñu ngi ñaan nag seen maam jooju leen ko dencaloon lu mu amoon Sëriñ Tuubaa yàlla leen ci ful lu kawe seen njort ba tax la ngeen ci yéene liggéey ngeen am ko yàlla na ci yàlla def barke yàlla ko yàlla def mu gën a jëm kanam am nañ ci yaakaar

doxee du bopp da nga ko di delloowaat ko ca mag ba ak famille ba ñoom ñëpp ñu jàpp ca ba tax kenn ku nekk xam ne mu mel nii mu war a mel ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm

sànnee asakaam euh, yàlla def leen ak man yàlla defal ñu taalibe Sëriñ Tuubaa yi Sëriñ Tuubaa ne ko suñu taalibe lu jamono rëb rëb lu mu jaxasoo ni Sëriñ bëgg ay taalibe mel ni yàlla ñu ko yàlla melal sàmm ñu sàmmal ñu njaboot gi ñu sore ñoom jóge ñëpp yàlla sàmm leen suturaal aar leen ci bàkki Seex Xaadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد